Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. mbokk téléspectateurs yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax di leen dalal jàmm ci télévision Equivox TV di leen wax ni ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy unité 7 des Parcelles Assainies ñëw euh, seet si ki nga xamante ne moom mooy fa fas yéene jël réaction am gannaaw bi nga xamante ne combat am ak euh, Tyson 2 euh, taxaw Tyson 2 ngeen gis ko mu génn def sortie bu am am solo hmm, sànni ay pic ak yooyu donc moom réaction la ñu jël si. waaye balaa boobu mbokk yi dañuy jaale ak lu làmb jaale Sénégal ki nga xamante ne moom mooy euh, Jules Balde Junior euh, di ko jaale mbokkam yi di ko ñaanal euh, yàlla xare ko àjjana également di ñaanal ki nga xamante ne moom mooy di jaale également ki nga xamante ne moom mooy Gaston mbeng ak ki nga xamante ne moom mooy sunu yaay Aminata mbeng seen yaay jooju bàyyee ko fi ñu yëg information bi tey di leen siyaar di leen jaale bu baax a baax gannaaw bi nga xamante ne combat bi taxaw na. Euh, lan moo tax mu nangoo jël ki nga xamante ne moom mooy Tyson 2 Tyson 2 lim ko wax wax ko waa parcelle moom lan moo tax mu ñemee dugaat par euh, moo tax mu dëkk parcelle Tyson 2 dugg fi lëmb fi moom mu nangu koo jël hmm? loolu yëpp mbokk yi moom lañ fas yéene waxtaan ki nga xamante ne moom mooy Franc waaye ba tey mbokk yi dama leen di wax ngeen gaaw dem abonné wu ci seen télévision ci seen chaîne Equivox ngeen activer notification bi ndax xam ngeen ne combat bi c'est en direct et en exclusivité sur Equivox TV ngeen di am lépp loo xamante ne avant combat bi la ngeen di am aussi après combat bi lépp loo xamante ne euh, ay mbere mbérembese la di ngeen ko am ci seen télévision Equivox donc gaaw leen gaaw abonné te activer notification bi salaamaaleykum Franck. salaamaaleykum maa ngi ziar ñëpp di ñëpp xam nga fi nga commencé rek laay daanalee di jaale suñu mbokk mbër bi muy Jules Balde Abibou di ko jaale waa Pikine yëpp di ko jaale monde làmb aussi parce que métti na quoi nga nekk ndaw xam nga say famille yaakaar ci yow yàlla teel la jël métti na trop mais di ko ñaar yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana aussi tamit suñu père Gaston yaayam dafa wàcc ñu koy jaale aussi ñoo bokk liggéey bi ñoo bokk métier bi yàlla nañu suñu borom yërëm te ñu ngi si def mu yéexee ñu fi. ma jël la ñu doon waxtaan dégg ay rumeur ci sa combat Tyson 2 ñu jékki-jékki confirmer ko ma dem Ndaayaan deux fois Tyson sa diggante ak moom taxaw pour pourquoi nga jël Tyson. non làmb la rek xam nga man moom bëre laa bëre moo tax ma boo bëre laa fi nekkal man xëyuma defuma dara su ma xëyee damay entraînement ji bu làmb jotee ma dem bëri ji. combat combat bu ñëwee dama koy jël ak nu mu mënti mel ak nu mu mënti doy bu mu mënti toll mooy sama métier. mais est-ce que wul torop lan moo ne muy nekk danger mënul nekk danger mbër la ni yeneen mbëri rek champion la nag mais mbër la ni yeneen mbëri moom ñu fi jot a jaar a yem rek wala ñooñu bu leen bu leen gënul bu leen bu leen ñii ñu fi jot a jaar buñ ko gënul ñoom ñoo yem rek. ah non mais mënoo mënoo wax ni Tyson ak ñi fi jaar yem. ah seen gis waaye man sama gis-gis loolu moom ñu fi jaar ñoo yem rek. Tyson dama ko seeti mu ne waa parcel bu ñu amoon jom danañ ko bàyyi. trois fois la fi dugg rajaxe leen bi ci mujj sa doomu ndey la. waaw moom bu fi teeloon dugg ci man loolu yëpp du fi am. bu dugg ci man loolu yëpp du fi am. bu dal waaw. ndax lan loolu. ah fi ma ko teg ak ak mu xam man maay kan ak sama mën-mën ak suma gëm-gëm. mais yow lan nga foog. yow yaa ëpp doole euh, Tyson 2 yaa ko dàq yow fan nga ko teg. fii kenn amul doole yàlla rek moom doole. waaw dëgg la mais yéen ñaar bu ma waxee loolu xam nga ku yeewu dem di liggéey ne mooy loolu am nga looy sàkku sa yaram loolu laa lay wax man doole boobu laay wax de. man daal maa ngi sama keppaar fii laa dëkk fii laay fii laay yeewoo fii laay jugee xam nga fii laa ne di fi ent lépp fii laa defee lépp fii defee xam naa maay kan xam naa sama bopp. Tyson 2 nee ay jamono da ngeen doon da bi ngeen di bi bi bi sa doomu ndey di waajal. comme am c'est-à-dire Gora Sock bi muy waajal ñoom ñaar seen combat daan na leen tas daan ngeen tase dune ya mu yéeg ngeen di yéeg ngeen koy xool. non dëgg rek moo neex yàlla. Gora Sock ba muy préparé Tyson mosuñoo Tyson 2 man dama doon préparé Nguer mu Lô di préparé Eumeu Sène mosuñoo daje dem dune ya sax côté Tivaouane Peulh lañ doon dem di entraîner foofu mais ci plan bi quoi comprendre nga mosuñoo daje dune. est-ce que est-ce que est-ce que waaw xëy na moom comme moom comme moom moo ñu doon lijjanti comme ñun lijjantiwuñu ko ñun ko. mu dugg ñetti yoon parcelle nga ne bu njëkkoon ci yow loolu yëpp du fi am lan moo tax. ah sama gëm ak sama mën-mën. nee na moo la dàq bëri. waaw ah, amul problème man moom mënu ma damay jàng bëri ba léegi. mais loolu mënoo koo wax yow mënoo wax ni bu jàkkaarloo ak bu jàkkaarloo nag yow. mooy loolu du fi dugaat yow nga mu jàpp gaa yi bëreeloo leen daan leen ci bëree. sawaay làmb ji taxaw na wax ji muy wax dafa bëri làmb bi man maa ko jël sama bopp man personnellement maa ko jël sama bopp te lu ci am incha allah bu man maa koy def maa bëgg a dem ci kaw làmb man la gën a yaakaar maay xale. mais moom làmb yaakaar na ko. Ah, na ko boobu fii lay taxaw rek. mais ay victoire lay taxawee ah waaw mais bii nag dina fi taxaw ak defet. nga ni. <laughs> defet. waaw. xale yi ko waxoon yëpp da leen freiné ah, man maa koy wax nag te du ma freiné te man mii maa koy wax te du ma freiné. ci fan nga ko teg. non ci lu nekk rek lañ ko teg am nañ gëm-gëm bi ay xale lañu te ñu ngi liggéey ñu ngi ci yoon bi loolu kese la. leen da ngeen dafa dem équipe nationale lim fa def xaaj ba defoo ko. non loolu mooy li ma la waxoon rek nee naa yu mu fa yu mu fa fekkoon yooyu dafa périmé yu bees yi ñoo ko yor xam nga tey jii nii gars yi doon liggéey ci ginnaaw nii da ngay ji sax filmé bi day ñuul noonu ak yéen seen bos yu bees yi nii yaa ma gën a xam day leer nañ image bu leer nañ. nee na ci 4 heures la toog. ci 4 heures ah, man de tooguma ci heure waaye li ma mujjee def muy fa de muy fa ne gañ. ñëw nag moom ci lutte avec euh, lutte simple nee na yi ngay jël yëpp dafa fekk ni euh, kii moo fa nekkul nu mu tuddati Reug Reug waaw ne ko moom mu mu mu mu kaasal boppam moom am na lu ko doy bu fekkee lu mu dugg nii dafa yomb wala day tëdd di nelaw muy ngi ndax boppam ñun ay xale lañu kon kooku muy wax waxuma ay waxam kooku bu tuuram ñëwee rek dina ci dal mais mag moom la fu pour l'instant na na lijjanti boppam moo gën yi muy wax noonu man musuma dem làmb bay négocier làmb bu ma jël rek làmb bu mag la du jël làmb wërale bum làmb bu mag laay jël. Ah, moom làmb yu mag lay jël te moom it. moom moom ñëwoon na fi defoon na fi retour defoon ñëw Adrien Senghor te man Adrien Senghor mooy loolu. mënul jël adresse daa daa mën a jël adresse na fi retour mais après dafa toogaat moom liy ci war numéro 2 bu mbaaw ñoo fa daje xam na li bu baax li may wax. daa njëkk ñëw samedi bi ñu baare ko ñu ne daa fees dimanche mu ñëwaat doon ut si dara ba mu ñëwee liy coor numéro 2 la jël mu daan ko jël bu rëy mu dem toogiwaat ñëwaatu wax mu ñëwaat xam nga keroog maa ngi ko dégg mu xaw ma moom bu doon ba léegi sax day bëri mbapat na ñëwaat nekk mu ñëwaat. pour yow jamono ji bu ñëwaatee du am dara. waaye yow yow ba mu ñëwee ki ko jàpp génnee ko foofu sax kooku champion la nag. mais kooku lu muy naru sax bariwul moo ko jàpp génnee ko mu day ñëwaat na ñëwaat. nee na fu mu toll nii trophée ngeen di jël ci lutte simple yëpp ay buuxante ngay def nee na daanutoo kenn da ngay buux gars yi ñu génn géew rek. waaw xam nga bëri moom dafa am loo xam ne moom la laaj fu mu toll nii nit moom mënoo ko jàpp ne par la force dama lay daan te temps boobu bëriwul comprendre nga loolu comme boobu loolu beneen expérience la boo demee ba bëri nit ki mu am ñaari avertissement di daw looy def yow. jeex na. moom nee na bu njëkk ba bi mu daan bëree mbappat dëggantaan daan na tase ak ay champion yu dul jeex nee na léegi champion yu bëreetul. waaw ah, bu dee moom bu dee boo waxee champion yu bëreetul day wax lu ko neex rek wala muy wax ak xolum kiñaan rek loolu kase la mais xam nga ni champion yi bu mu leen doon lim fii duñ fi duñ fi jug te ñu ñoo gën a fere ñu ñoo gën a doon ay xale. mais Franc Tyson 2 mi ngay ërtal nii Tyson 2 ci ay xale xale xale bu am doole bu mës a ñëw freiné la la indi la bagaar boo attan. man man man nekkuma ne xam dama koy dox ci ay moyen mag man ni may waxee nii man noonu laay demee noonu laay jëfee loolu la nekkul ay yow combat boo xam damay ñëw di négocier yooyu non non. nee na bu arbitre sifflé la njëkk dóor moo la njëkk song. waaw loolu moom ci moom lay dépendre rek non loolu man dégguma ko ci moom lay dépendre rek moom moo xam lu mu bëgg. waaye man l'essentiel li may def incha allah dinaa ñëw def ko dem sama yoon. da koy xaar wala da nga koy song. kon man lu mu laaj rek. sañ ngaa sañ ngaa sañ ngaa song jotaay bu amee tamit lu leneen lu gën a neex song wala lu ko gën a kii tam ñu jaar fa rek. Tyson ñi ko song ñëpp da leen créer problème de rapidité bëre boobu. ah ñun ay ndaan lañ dëkkal fii fii keppaar fii fii ñu fii champion yu la ñu fi. soo gaañoon benn waa mooy loolu de dafa garaaw de grand ins mi ki mooy jox clé grand ins est-ce que yàggul jox clé waa parcelle trois fois ku fi dugg jàpp waa parcelle di leen rangale est-ce que yàggu koo jox euh, gars yi clé yi Tyson di leen <coughs> xam kii dama ko yoroon denc ko fii moom moom mu musul muy soog a génn sax quoi fi laa dencoon rek ci rukk bi mooy loolu nee na combat bu mujj bi da ngeen ne woon yaa ànd ak contact ak Gora Sock liggéey ak moom ngeen ànd voyager ànd def lu ne nga jox ko sa xam-xam gépp boole xam-xamam boole xam-xam Modou Lo boole xam-xam mu dëpp leen rek comme ni mu daan def. waaw loolu loolu la borom dogaloon suñu borom bi loolu la dogaloon comprendre nga mais moom moom ñooñu bëriwuñu maam moom ñooy bëre na baay ñu mu ciy dugal yooyu noonu maag ñee arrêt bu sifflé ñee duñ dugg ci géew man maa dugg ci géew man maa koy lijjanti man maa koy dem jëflante ak moom mu bàyyi ay non waa pare lii nii non non du foofu du ay. waa parcelle kay bu ñu doon bu ñu doon contact ak moom kenn du des ñëpp lay tër. waaw baax na bu njëkkoon ci man nag loolu yëpp du am te te nag yàggatul dara ni ñu jëm ci bés bi wax bi jaratu muy bari. lan ngay wax waa Ndayane tëkk nañ la. Ndayane laa di wax. ah mais boo waa Ndayane di la waajal nga ne la leen di wax. non dama leen wax dara yàlla na yàlla defal jàmm rek. boo leen boo boo leen boo leen amoon jom waa parcelle bu ñu amoon jom dañuy bàyyi waa waa waa bu ñu déggee ndaayaan dañoo war a taf seen seen nopp man xam nga damay jaar noonu ndaayaan damay jaar noonu dem Popenguine siyaare Mariama tamit ne ko mu def ndànk rek guddi yi sañ nga faa jaar ay ah, yow pour moom moom foofu déet Tyson 2 moom moom zone boobu de moo lan moom leer période bi combat bi taxaw yow sañ ngaa jaar foofu waaye yow pourquoi pas du neewul da ngay jaar rek da ngay romb bu amee soxla foofu sax dama ko fay dem doxi waaye yow loolu dafa tegu. Franc man gëm-gëm gii ngay waxee fit gii may waxee moo ma jaaxal. nii laa man nii laa mel moom man dama lay. mais zone jàmbur dañ fa dugg. waaye yow te moom bu amee soxlo fii du ko doxi lan la. Ah, sañu sañu te dugg guddi yi parcelle. non non loolu du loolu bëri la rek loolu bëri moom. doo ko wax loolu moom méttiwul. lan ngay wax say supporters. waaw gars yi moom ñu ngi ci ba combat bi taxee moom lañ nekk ci liggéey bi quoi xam nga comme boog bi aussi tam am na fu mu ñu mun a yóbbu quoi di wax waa parcelle ak ñoo xam ne ñooy ñoo ci yàgg jàpp quoi ñu ñëw jàpp ci bu baax a baax xam nga waaw laa ni wax rek. Eh, say xarit wax nga ko sànq ñoom Papa Sow ñoom Modou Lo 100 pour cent bi tudd na ñoom ñëpp ne moo leen dàq bëree wax na wax na ci lu bëri lan moo tax nga ne bum leen tudd. non dama xam ne nekkul moom ñooñu ñooy bëre maam moom ñooy bëre na ma tudd rek loolu kese ñooñu ñooy ànd ak yow di liggéey di di la jox seen xam-xam. kan moo dugg ci géew bi. yow waaw comme na ma tudd maa moom ñoo ko sekk. du sa xam-xam rek ngay bëri jee foofu. c'est xam la muy def noonu du respect. loolu du respect yow nit ki boo bëggee ñu respecté la aussi da nga respecté sa bopp loolu du respect moom Eumeu Sène lay àndal champion la dañ ko respecté mais doo dégg ñu ko fi tudd yooyu noonu bëre la rek sport la xam naa day neexal wala muy ut lu mu kii rek mais mu bàyyi ñu muy tudd mag moom ñooy bëre mu xam loolu mag moom ñooy bëre. moom nee na combat bu mujj bi ñooñu noonu ñoo ko encadré ñu indi ki nga xamante ne moom mooy Goro mu jaarale ko fi mu ko jaarale loolu tax loolu équipe la dañuy liggéey équipe la rek dañuy liggéey comme ni nga àndee sa caméraman mi di liggéey ak moom noonu la demee rek moom tamit xëy na kuréel bi noonu yooyu muy wax def si bopp bi la war a bàyyi ay soo soit ay waa Pikine jàpp cent pour cent yooyu amul. mais si dafa gëm ni ñooñu noonu ñëpp moo leen dàq bëre. xam nga expliqué gis nga yooyu amul gis nga nit da gëm sa bopp nga gis Pikine nga gis Parcelles da ngay dem loolu ngay gëm esprit ngay doxee ah, ay cent pour cent yóbbu ma sama bopp ak Pikine ak i dugg luy ah, loolu. loolu day wax. luy loolu. dafa wax gëm-gëm. cent pour cent kañ la judd. moom ba mu nee ci làmb ba léegi ba ba léegi cent pour cent la fi cent pour cent américain da ngay dem sa boo gisee nit boo gisul nit da ngay sa ngëm-ngëm ngay demee ah, ay cent pour cent ay Pikine ak luy loolu. kon dafay laaxatu. ah. day foofu la dëkk tamit bu ko neexee mu dem am na su plein droit mu dem ànd ak ñoom mais yooyu noonu kii wu ko quoi toog télé bi fuñ la wax nga ne cent pour cent Pikine yeguma sama bopp bu yàggee sax dañuy xaw am nit yi daa am ñu ñuy gisee quoi. waaw waa ñu mu dëkkal dañ koy xaw a xeeb tuuti quoi te loolu jaru ko na defaraat kéem quoi maay nam na ko indiwaat waa na ko yu muy def fi làmb ji amul dara lu yomb. mais nag Franc bu loolu weesoo xan dem dëgg des Tyson de bagarreur la sincèrement ñi mu bëril ñëpp da leen créé ay problème yu at te gars yi dañuy wax ne Franc ba tey ci lutte avec frappe xeexagu fi. waaw mais moom bagarreur la da nga ko gis mu wàccee fi mbër mu dóor fi mbër ba mu daanu. déet mais dóor na mbër mu perturbé mu daan la. non gis bu laax mu wàccee dóor mbër ba mu daanu kay loolu laay laa gisuma mais yow dóoroo waaw dóor ma fi kenn man waxuma ba léegi bagarreur la moom moo yow yaa moom bagarreur la mais moom gisoo moom gisoo fi mu dóor fi mbër ba mu daan te man bagarreur yi ma fi gis yëpp dañuy def ay kaaw ci làmb ji. moom moom moo da lay perturbé ay gauche waaye dóor la ay rafaat balaa ngaa calculer. ba bagarreur da ngay kaaw ngay kaawar comme ay ñoom Moussa Dioum mu fi doon def Gris Bordeaux da lay dóor nga kaaw xam nga nga perte connaissance yooyu noonu di tartari ñu ne kii bagarreur la ba làmb ji gars yi tuddee ko noonu. yóbbu yóbbal suuf yóbbante ci kaw wàcc suuf ñun xam nañ lépp. des na yeneen. kon yow seetlu nga Tyson de. non gis seeraat nañ ko muy bëri ah wax dëgg yàlla. xam nga ni xam nga ne dafa dangereux de. non bu dangereux woon sax duma ko jël waaw. ci gàllankoor mosoo am adversaire bu mel ni Tyson de ci làmb. waaw loolu la gars yi wax nag. loolu la gaa yi wax waaye moom tamit musul am adversaire bu mel ni man. Franc mënoo wax ni gars yi moom la ñu wax loolu loolu loolu moo am. noo gaa yi lu ñu wax moo am kay nee nañ musuma am adversaire bu mel ni Tyson 2 waaye moom tamit musul am adversaire bu mel ni Franc ci làmb. musul am adversaire bu mel ni yow. waxal kalla ñu ñi ma ñëpp. ñi ma bëreel ñëpp wax ma. mooy wax. du ma ko yombalal de. leer laa la wax. <laughs> ba bàyyi nga tàggatoo. waaw di gërëm parcelle 1 26 rek xam nga di sama grand Edouard di mu la jox tamit mu ngi ciy jàpp quoi di gërëm waa Joal aussi di woo sama mbokk njaago yi xam nga fii ko ñu njaago la xam nga fii mooy cosaan bi waa grand aussi tamit sama gars yi xam nga di leen wax ngeen ñëw jàpp ci bu baax baax. di woo tamit aussi Mbaye Diagne sama international bi xam nga doomu ndey Amadou Diouf Fall borom Espagne Mbaye Diagne mooy nit ku baax. xam nga borom jaay te mu nekk a waaw Charleroi la ne xam nga di ko ñaanal jàmm am laa sol nii sax quoi di ko wax yàlla na yàlla gën a yokk xéwal bi xam nga gis nañ affaire yi daal. waaw di ko wax combat bi aussi tam mu jàpp ci grand Khalifa Sankere borom Belgique ku ci jabon tamit xam nga mooy loolu quoi ak maam Père Ba maa ngi koy nuy bu baax. waaw di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm ak Mansour Ba waaw di nuyu waa parcelle yëpp 1 ba 26 waaw jëf ak grand Babacar Gueye bu Amadou Ba waaw Mamadou Moustapha Kane waaw bu mouvement président ànd defar parcelle aussi tam maa ngi koy nuyu wér wér di ko ziar fayaa ko jurub niñ doon niñ ko doon defee rek Joal waa Njong maa ngi leen di wax ngeen ñëw jàpp ci affaire yu baax a baax waaye. Joal dëkk jàmbur la. kan. Joal dëkk Tyson 2. Tyson 2 lu mu ëppal Joal. Tyson 2 Joal ak ak Joal di di dëkkam. loolu du débat sax boo jëloon sa micro nga dem foofu laa. waaw ah. nga di nga. nga laaj waaw waa waaw defal loolu loolu moom du ma ci neef di fi débat moom. voilà mbokk yi gis ngeen émission bi nga xamante ne def nañ ko ki nga xamante ne moom mooy euh, Franc fi nga xamante ne moom mooy Fii FM euh, fii ci Parcelles Assainies gis ngeen li nga xamante ne wax na ko ñu leen di fàttali rek mbokk yi combat bi en direct la en exclusivité ci seen télévision Equivox TV donc abonné leen gaaw euh, te activer euh, notification bi pour mën a am lépp loo xamante ne euh, ay mboot la yoo xamante ne combat bi làmboo na ko avant pendant et après donc Cheikh la woon ànd ak El Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.